yëg nañu te gëm ni. Mhm. Euh, euh, incha allahu taala bu nu xamee fi nga ne. Mhm. seet si la foofu. Mhm. aaju yi faju bu bu àndeeg dogalub yàlla. waaw bu àndeeg dogalub bu àndeeg yàlla maanaam maanaam man moom duma ma dig kenn dara. diguma kenn dara waaye ku ku dox man rek xam ne yàlla mën a may ab jaamam. ku dox yow. waaw ku dox ak man xam ne yàlla moo mën a may ab jaamam. mi ngi noonu du ma bëgg dara it ba ba ba xaar ko ci nit wala dara lépp rek yàlla. sunu borom moom maanaam ku ku ku ànd ak yow. waaw man moom bu ñu doxee tuuti yàlla mën a may. bu ñu doxee tuuti rek nga xam ne yàlla moo mën a may jaamam. mbokk yi mi noonu. yaakaar naa sëriñ bi ay boroomi xel lay waxal. loolu yenu na maanaa seen émission bu mag bii di siira. tey jii di ngeen gën a bëgg si dina ma xam. gën a fonk salatu ala nabi. alassane seen i lay waxtaar. Mhm. Euh, am na ñoo xam ne ñu ngi door a ñëw nee nañ numéro bi lañ soxla. ñu ngi ñu ngi ko bind. génne ma numéro bi ñaari numéro yi. mi ngi noonu mi ngi numéro yaa numéro yaa affiché na ko jël leen ko incha taala sëriñ bi nga xam ne seen i bët neexul ñu waxaat numéro bi waaw 77 77 la 809 609 809 809 47 77 809 47 47 95 95 78 78 121 121 14 14 13 13 waaw